الأمراض وكب من أنكر بالتراد لو شكور على حياتي حدا بالمسجد والجنان قربا أذكر وأذكر الذي سمع عني جزى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نظرني بالمصطفى المصطفى علي تسليما خلوا عن في داخل بيع المسكور من زخر للخلق بقاء ساء ربي مالكي خليلي ونبي وقد معاه يداني تدي براني من كل عيب ومرض وخاد لسعد بي كل خرد بريت من ولاد نشيب التجاه إلا الذي أبوابه huda wale بالمنتهى daa العالمين وجعل so Wizarro سيكين هدياتي حسي بلا ردك ما تبلا هندك من هبيلا من جاديك مسرقين هدياتي Amen so wa sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala arsafil mursalin sayidina muhammadin wa min tabiahum bi ihsani ila yawmi din rabbi rahli sadri wa yusr li amri wahlu xoqodatan min lisani faqali mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi fii ci kër soxna maam Fatou Mbakke moom Serigne seex Gaynde Fatma moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke moom sëriñ seex Mbakke ak sunu sango bu baax bi Baye Serigne Mbakke ñu fi jëmmal guddi gi nga xamante ni mooy le vingt bi nga xamante ni moom lañu fàttale sunu jàmbar ju baax ja Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke di kenn koo xamante ni mënuñoo tudd yoonu murit te tuddum ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke di jëmm joo xamante ni ku ràññeeku la ci yoonu murit nga xamante ni yoon bi dañ naan bu dee ab raay la moom mooy nekk ca boppam moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbakke tey nag di màggul gu jëkk ñu koy tuddee màggal gu njëkk di màggal goo xamante ni sëriñ bi waxoon na guddi gi képp ku ko mën a fanaane nga fanaane ko tey nag ñu nekkoon fii di ko jëmmal ci kër soxna ma Faati Mbakke ànd kook jàngikati kuréel ak durus ak lépp loo xamante ni ay salaatu ala nabi ak durus xasida def nañ ko ci bis bi di ñaan nag suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xamante ni muy borom jaam ñi mu lii nga xamante ni moom lañ fi ñaan jàng ko ci alxuraan ak xasida mu yóbbul ñu ko ci suñu waajur wa bi di leen xamal rek tey ci guddi gi di guddi gu tedd ci yoonu murit waaw guddi goo xamante ni jëmm ju baax ji lan fii fàttaliku muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké waaw Cheikh Mouhamadou Sa di jëmm joo xamante ni wax dëgg yàlla di jëmm joo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci yoonu murit waaw ñëpp xam nañ ko ci yoonu murit te ni moom moo fi indi raay bi moom moo jëli Seexul Xaddim Jurbel indi ko tuubaa lépp loo xamante ne luy bopp la ci yoon wi rek moom Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko def kon daal guddi gi ànd nañ kook suñu sang bu baax bi muy Baye Serigne Mbacké ak mbooleem taalibe yi nga xamante ni rek nekk nañ ci kër gi ak mbooleem kuréel yi nga xamante ni ñëw nañ ci Darou Khoudoss ñi ngi ci Darou Khoudoss ànd nañ ko ak ñoom magal guddi gi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yoon woowu yëpp mu boole ñu ko fayal ñu ko suñu jàmbaar ji Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di nuyu it ki fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla it mu bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu ki fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha muy sëriñ Cheikh Ahmadul Mokhtar di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak di nuyu itam ki fi nekkal jëwriñam sëriñ Cheikh Mbacke Madina di ko ñaan itam mu yàgg fi loolu te wér euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax. di sant boroom tuuba itam di nuyu itam sunu kilifa muy sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Madina moom mi nga xam ne bi ñu ko laajee ndigal ci bis bi moo nu jox ndigal nu taxawal ko bis bii nag muy bisu màggal Daaru Xudoos li tax nu taxawal ko mooy li Cheikh Moustapha waxoon na képp ku ci fanaan wala nga fanaane ko dundal danga nga wicc ne bis bi nga juddoo ci ay bàkkaar képp koo xam ne itam fanaan nga ci loo ci ñaan rek yàlla dana la ko may Cheikh Moustapha it waxoon na itam ne sëriñ bu mag bi dana dugg ci kër yëpp xool ku ne ba xam mi ngi koy màggal wala màggalu ko man nag li ma jàpp mooy bis bi sëriñ mag bi dajeek boroomam mooy bis bi ko gënal ci bis yi looloo tax nu nu koy màggal fii ci Daaru Xudoos bis bii nag mooy première édition bi ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu te danañ ci gën a jéem yu bari incha allah defaat yeneen yu bari bu neexee yàlla sunu borom. initiative bi itam li ko waral mooy li ko xam ne Cheikh Amadou Moustapha moo ko digle li ñu ko gën a yombalal itam mooy sunu kilifa gi nga xam ne biñ ko ci laajee ndigal danoo bàyyi rek dañu see jox ndigal ndax xam ne ndigalu Sëñ Tuubaa la ndax bis bi Sëñ Tuubaa dajeek boromam moom mooy bis nga xam ne moo ko gën a ci bis yëpp loolu rek a tax nu taxawal ko waaw di ñaan yàlla mu bàyyi fi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ak Cheikh Ahmadou Mokhtar ak jëwriñam ju baax ji muy Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy kilifa Cheikh Moustapha Mbacke Madina asalaamaaleykum wa rahmatullah